asalaamaaleykum askan bi seetaan Star TV da leen si jàmm si kër gi su ko defee mbokk yi ñu ànd ak ci xibaar bi ngeen ànd koy tàmbalee mooy ci pencam daaru ma fi nga xam ne foofu député yi ñu fa doon càmbar ci li jëm ci problème bi nga xam ne mu ngi amoon foofu la Sagnang fa nga xam ne nag xale yi foofa nag dañ doon jàmmaarloo ak police yi fa ndax nag dafa am benn xale bu góor boo xam ne ñàkk na foofu bakkanam mbokk yi Gambie nag seen i yi nga xam ne ñoom noo oote woon foofu ab ndimbal nag fu mu toll ni jàpp ne mission boobu jeexal nañ ko ba tax na Gambien si fa demoon daal dañu dellusiwaat ci réew mi te nag ba ñëwee am na suñu taskati Access Bank bu Gambia nag seen i stars yi dañoo génnoon ci mbedd yi maanaam daal dañoo toog jàpp seen i ñaambur daal di def ab ñaxtu ne nag duñu dem liggéey feek nag yokkuñ seen i salaire yi maanaam daal seen pay mi daal dafa ndoon loolu ba na dañ daal fekk nag seen i kilifa yokkuñ daal seen salaire ak condition si nga xam moom la gaa di liggéey dañu delluwaat nag continuer seen euh, liggéey na euh, xibaar yi yëgal gaay na lu aju ci wàllu ñetteeli mandat kenn du ko wax Sénégal kenn du ko tuddi Sénégal te nag Macky la bu ko jéemee def sax dañuy euh, génnaat comme nañ génne woon nag affaire gis ne loolu dañ koy dàqalu ci réew mooma mbokk yi Congo seen i élection bi nag maanaam seen présidentielle élection bi fu toll nii ñu ci waajtaay waxtaan nag euh, li nga xam réew nag moo fay moom moo ak yeneen takkader yi tàmbali nañ di sànni seen karta ndax nag ñooñu dañu war a sànni seen karta bala nag ñu dugg ci élection bi si boppam pour ñoom it ñu mën a dem sàmm nit ñi waaye nag loolu ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci yeneen mouvement ñoom jàpp loolu dara labañ moo si tax a jóg li nga xam ne nag kay su ko defee ñu dalaleen si jàmm ñu dooree xibaar yi ci euh, pencam ndaw réew bu Gambia ci néegu député na ci àllarba bi foofu député yi ñun doon càmbar li jëm ci wàllu jàmmarlo bu amoon foofu la sa Sagnang ne nag Jibril Cissé dafa am benn sàccakat bu nga xam ko fekk loolu nag merloo ndawi Sagnang yi ba ñu génnoon ci mbedd bi ci altine bi daal di fay def pa ñaxtu ñaxtu boobu na tax ba ñu daal di taal police station bu Sagnang ak tamit euh, Chinese Fish Meal Factory bi nga xam moom moo nekkoon foofu la ca dëkk booba Seydou Camara moo fa ñu teelu ko xibaar gannaaw bu yëngu-yëngu amee foofa sa saañang ba mu am ñi nga xamante ne ni jàmmaarloo nañ ak police yi lakka police station bi di ñaawlu rey bi nga xamante ne moom lañ rey kenn ku bokk ci ñoom te ku ko rey nag ñu jàpp ne ab sàccakat la bu duggoon ci biir kër bi pour sàcca bagage yi nga xamante ne ñoom ñoo fa nekk jàmmaarloo ba nag bu mu amee ba musiba bi am foofa sa saañang ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk National Assembly members yi gaarale nañ seeni kàddu ci mbir moomu ci néegu député yi memba bu Kiang Central mu di honorable Bakary Camara gaarale ay kàddoom di xamle ni mbir mi nag dañ ko ñaawlu te méttidu nañ ko bu baax a baax ci biir réew mi ci kaw noonu tamit muy oolu ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk police réew mi di ko jaarale ci ministre of interior ak nguuru réew mi pour ñu def gestu yi nga xamante ne nii gestu yu tëddoo njaaxanaay lay doon gestu yoo xamante ne dinañ xam lan moo waral mbir moomu foofale ca diwaanu Sanyang ci kaw noonu mu continuer ay kàddam di xamle ne ndawu réew mi ñoom ñoo nekk yaxu ginnaawu réew mi ndaxte ndaw yi nag nguur gi dañu war a bàyyi eh, di sukkandeku ci li nga xamante ne moom la leen tuppee ci youth empowerment lip services maanaam di leen dig ne dinañ leen dooleel ci biir réew mi te duñ si gis dara dafa jot nag pour ñu fexe ba gis ne dinañ gaarale ay liggéey yi nga xamante ne ndaw yi dinañ si mun a sukkandeku su ko defee nag ñu moytandeku ñaawteef ak tamit problème yi nga xamante ne moom mooy faral di xew ci réew mi te ñu si gis ndawu réew mi gannaaw moom am na yeneen député yi nga xamante ne ñoom it gaarale nañ seen i kàddu di ñaawlu mbir mi di ko daxalu it fii ci biir réew mi ñu oolu gi pour ñu def ay gestu ci mbir moomu su ko xam diggantaan lan moo xew foofa sa saañaan ak nan la xewee waaye waaye honorable faatumate Diawara mu di député bu Talinding Kunjang ah, moom nag wax na ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk nguuru réew mi ak police yi ñoom rek mënuñu def liggéey bi ci lu aju ci wàllu kaaraangeeb réew mi pour dàqalu fitna yi nga xamante ne moom mooy xew ci réew mi ah, mu ne nag exemple bu muy joxe mooy ci goxam ndaxte ñoom am nañ li nga xamante ne ni moom lañ tuppee ci community policing maanaam ñi nga xamante dañuy dëkk ci gox bi eh, di xeex lu aju ci wàllu ñaawteef yooyu nga xamante ne moom la ñuy faral di gis ci réew mi ah, mu jàpp ne loolu lu bu fekkee ne am na ah, dinañ dimbale nguur gi ak police yi ci xeex bu ñuy xeex fitna yuy am ci réew mi. ñoom député yi nag seen ndaje bi ñu ngi ko tëjee ci lajceeki tontu yi nga xamante ne dox na ci diggante député yi ci pencam ndaw réew mi ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk jëwriñ yi nekk ci nguur gi la Seydou Camara Star TV News. wax kay ginnaaw jàmmaando boobu rek ñu dem seeti ji beneen ñaxtu boo xam ne nag ay doomu Gambie ñoo ko doon def ne liggéey ci Access Bank bu Gambia. Euh, foofu nag seen staff yi nag dañoo toog jàpp seen njàmbur ngir nag dañ ne ñoom pay bi ñuy fayeeku nag foofu sa banque booba dafa ndóol lool te dañuy toog nag jàpp seen njàmbur fii bi balaa seen i kilifa di yokku condition si nga xam ne moom la gars di liggéeyee ak seen banque nag ñu ne seen staff si fu mu toll nii naka dañoo toog xaar parce que nag ñu ne lu aju ci wàllu promotion lu aju tamit ci wàllu staff si nga xam nag dañoo war a continuer seen liggéey foofu ak seen salarié yi daal ñu ne loolu yëpp daal dafa doon loo xam ne seen i kilifa dañoo am seetuwaat ko bu baax bu ñu si deful nag ab yokkute ñoom nag dañuy toog continuer seen i seen kër yi jàpp seen njaawur te bañ a dem liggéey ñii nga xam ne nag ñoom ñooy liggéey ci banque bi ñuy xamee ci Access Bank ñoom daal ñoo def ab doxam ñaxtu jëmale ko ci ñi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk seen management bi ndax nag waxoon nañ ñi nga xam ne nag ñoom ñooy seen management bi ne ñoom daal jamono bi luñ bëgg a mooy yokkute si li nga xam ne nag moom mooy seen liggéey maanaam ñu daal di yokk seen salaire bi ak yeneen bénéfice yi xam ne nag ñoom yeeloo nañ ko waaye nag dafa mel nii daal banque bi fulaluñ li nga xam ne nag ñoom la seen staff si bëggoon ba tax na nag ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey foofu ci Access banque ñoom nag ñu def li nga xam ne nag moom mooy ab doxam ñaxtu su ko defee nag li nga xam ne nag moom lañu ñu bugga ñii nga xam ne nag ñoom ñooy seen management bi ñu daal di leen koy defal waaye nag doxam ñaxtu bi nga xam ne nag moom lañ jot a def dafa mel ni nag dafa xawoon a métti si ñi nga xam ne nag ñoom ñooy clients yi ndax nag clients yi daal ñu ne xamuñ ne ab doxam ñaxtu dina am fi nga xam ne nag moom mooy si banque bi ba tax na ñëwoon nañ si banque bi la waaye nag li nga xam ne nag loolu loolu fa andi mujjeewut a sotti mu nekk li nga xam ne nag métti woon na lool si ñii di clients yi ba tax nag kii bi waxtaan na ak Star TV xamal Star TV ne moom daal jamono bi naxar rek la am gannaaw bi nga xam ne nag ñëw na si banque bi te banque bi daal waxuñu woon gars yi ne dinañ am li nga xam ne nag moom mooy ab doxam ñaxtu ba duñ liggéey konoon nag dinañ doon toog fi nga xam ne nag moom mooy si a daal banque bi ba tax na nag banque bi daal daal dinañuy def li nga xam ne nag moom mooy ñooy staff yi su ko defee nag ñu daal di waxtaan seeni biir su ko defee ñu gis naka la ñuy eh, jéema solfee li nga xam ne nag moom mooy problème bi ñu am seen biir waaye nag ci biir meeting bi daal management bi daal xamal ne ñi nga xam ne nag ñoom ñooy staff yi pour rek bu kenn génnee ab kaddu jëmale ko ci li nga xam ne nag moom mooy am media bi ndax nag ñu ngi ut nga xam ne nag moom mooy solution ci problème bi le ba tax na nag journaliste yi nga xam ne demoon nañ foofu noonu ca banque bi doon xaar rek pour seet ban façon jafe-jafe la gaay am foofu noonu ci banque bi ñoom nag nanguwuñ pour ñu daal di dugga fi nga xam ne nag moom mooy ci banque bi pour ut fa xibaar yi wóor staff si nag demoon nañ si nag demoon nañ sax ba bëgg a li nga xam ne nag ëppoon na lool ndax nag demoon nañ bene dinañ dem ci media bi wax li nga xam ne nag moom la Access Bank def Access banque mu nekk banque yu bokk ci banque yi nga xam ne nag dañ leen ràññee fi nga xam ne nag moom mooy Africa seen liggéey bu xarañ ak seen mun a liggéey staff si wax nañ ne ñoom xamuñ lu tax ñu ngee liggéey ak uh, Access Bank ci at yu bëri ba tey uh, yokkuñ li nga xam ne nag moom seen salari wala nag jox leen li nga xam ne nag moom mooy ay bénéfice mun a yàgg nañ di liggéey fi nga xam ne nag moom mooy si banque bi waaye nag teewul ñu yokkal leen seeni salari wala jox leen salari bi nga xam ne nag dina leen mun a jëriñ ñu ne nag ndax fu mu nekk nii soo xoolee Access banque staff bu nekk daal sa account lu fa nekk nag mooy zero savings ndax nag amuloo li nga xam ne nag moom mooy salary bu doy ba ngay denc fi nga xam ne nag moom mooy ci sa bank account mu nekk li nga xam ne nag neexul kenn. ba tax nag jamono bi ñi nga xam ne nag ñoom ñooy staff si ñu ngee déglu di xaar ci ñi nga xam ne nag ñoom ñooy management bi ñu seet ba xam ndax nag liñ leen wax dinañ ko def wala update Maimouna Diouf Star TV moo koy fële ca Soudan Gambien si nga xam ne dañ faa demoon ñoo xam ne ay militaire lañu maanaam daal ay soldat lañu doon ay takkader yu réewu Gambia demoon foofu nag pour dellu fa jàmm euh, di ki at yële passé woon wala boo ko daaw ñoom nag dañ dellusiwaat ci réew mi parce que nag ñu ne mission bi lañ yóbboon foofu ñu toll nii UN dañ ko daal di tëj ndaxte place boobu nee nañ daal dina defal jàmm nag moom moo leen fay bon waaye fu mu toll nii daal jàmm ak dal nag delsi nag ci lii di euh, daafoo te nag gàmmeel si fa nekkoon dañ leen ooluwaat nag pour ñu dellusiwaat ci réew mi te ba na nag ñi fa demoon euh, teg nañ seen tànka si suufu Gambia ci airport bu euh, Gambia foofu nag sunu Seydou Camara moo fa nekkoon ñu dem teewlu ko si xibaar bi mu indi ci yaataal. ñi bokk ci soldaaru réew mi demoon foofu ci réewu Sudan ci seen tund bi la di daafo pour dellowaat jàmm ci tund woowu nga xamante ne ni fitna moom moo fa nekk dellusiwaat nañ ci biir réew mi niki démb ci talaata bi. ñoom ñu bokk ci jàmbaar yi nag mu di soldaaru réew mi dalal nañ leen ci airport bi nga xamante ne moom moo nekk ci réew mi ñoom nag waroon nañoo am lu toll ci benn at foofa ci réewu Soudan waaye politiciens yi ci réewu Soudan ñoom ñoo sàkku ci United Nations Security Council bi pour ñu génnee ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk peacekeepers yu nekk ci seen tund boobu mu di Darfur region bi loolu moo waral mataluñ benn at juróom benn weer lañ am foofu ñibbisiwaat ci biir réew mi baaj bu njëkk bi nag dal nañ ci biir réew mi ci talaata bi dalal leen nag ci airport bi di commander of the Republican Guards mu di brigadier général Turo Jawne ànd ak nag ñeneen ñi nga xamante ne ay borom ndombal tànk lañ ci soldaaru réew mi. brigadier général Jawne gaarale ay kàddoom ci airport bi di jaajëfal ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk soldaaru réew mi bàyyi ko foofu ca Darfur region bi ci liggéey bu mucc ay bi nga xamante ne def nañ ko pour delloo jàmm ca réewu Sudan. wax na tamit lu waral ñu daal di génnee ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk UN Peacekeepers yi foofa ca réewu Soudan ci seen tund boobu di daafoo keneen ku wax ci airport bi mooy Major Abdou jaata moom tamit jaajëfal na ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk soldaaru réew mi gannaaw buñ dalee ci airport bi muy wone ne xam nañ seen liggéey bu baax a baax li leen yóbbu foofa ci réewu Sudan ci tund boobu di Darfur xam nañ ko te def nañ ko ba mu mat bente it ñu war a séentu beneen baaj bi nga xamante ne ni war nañoo àgg ci biir réew mi te dinañ leen séentu niki tey ci airport bi seydu Camara Star TV jëntali xibaar nag ci réew Gambie ñu jàll dem seeti ji xibaar bi ci réew yi fañ koy doore ci mooy ci réew Sénégal Sénégal nag seen opposition leader bi maanaam ki jiite opposition bi si jamono yi euh, euh, mu ngi koy wuutu si leen ci talaata bi Sonko nag am na ay kàddu nga xam ne dellu na ko waxaat yóbbante ko président Macky ci conférence press conférence bi nga xam ne mu ngi ko am foofu la ca Dakar ci capitale bi moom mi jiite Pastef nag ci ay kàddoom Euh, ñoom nag euh, dinañ fexe ba boole nag kilifa diine yi ci waxtaan yi nga xam ne ñu ngi koy def pour fexe ba nga xam ne réeróo bu am ci wàllu politique ci réew Sénégal daal dinañ ko mën a saafaraal parce que jàpp na ne ñoom kese ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite xuja politique yi ci réew Sénégal euh, loolu nag waxtaan yi di sotti ñoom i neen seeni diggante te nag ki nga ne moom mooy Macky dafa bëgg wutal si lii di ñetteeli mandat te loolu nag ñoom duñ toog di ko seetaan moom kii di Ousmane Sonko ci ay kàddoom daal wane na ne kilifa diine dinañ leen oolu waaye tamit ne yëpp ñetteeli mandat bu nekkul Macky Sall sax dina amaat keneen beneen président moo xam ne dafay toog di xalaat sax ne Eh, Sénégal yi nag dañ ko war a jox ñetteeli mandat li nga xam ne nag méngoowul ak seen satage seen loi loolu daal duñ ko nangul Macky Sall duñ ko nangul keneen koo xam ne dafay jiite lii di eh, Sénégal ci kàddu yi nga ko parce que nag Ousmane Sonko waree na ne ne nag eh, dinañu fexe ba ko dee nag ñaareel mandat bi jeex na mu bañ a wàcc li nga xam ne moom moo di di lenge yi sénégalais yi bari nag ci fan yi woon génn dañoo génnal ci mbedda yi gannaaw nag buñu jàppee Ousmane Sonko daal di koy yóbbu ci kaso yi ngir dañ koo tuumale dafa am ko daal di sàkku loolu war a nag ba ñu meroon toogee seen mer at yële passé woon ñoom itamit dañoo génn mer Ousmane Sonko nag mu ne ña génnoon noonu nekkul ay mbiram moo tax ñu génn waaye nag dafa am problème bari nga xam ne dañu ko dajoon si nguuru Macky Sall te mënuñ xamuñ naka lañ koy fajee buñ jàppee Ousmane Sonko nag ñu jaaree fa nag daal génne wane li nga xam ne nag moom mooy seen naxar ba nag wan na ne Ousmane Sonko mu ne bi yoon daal dafa rafetlu ñi nga xam ne ñoom ñoo daal génn ndax ñay yëngu ci wàllu politique bi civil society ñay seetu àq ak yelleefu doomu adama yi doomu réew mi ñoom yëpp ak génn nag wan ki nga xam nag moom mooy Macky Sall ne daal lii doy doy nag koy tuddaat nag foofu la ah, ñoom liñ ànd ak moom benn yoon ci kàddi nga xam Ousmane Sonko wax ko suñu paree rek ñu jàll dem seeti ji ah, réew di Congo Congo ñu ngi waajal seen i présidential élection mu doon nag élection boo xam ne ne musta am ci réew Congo nag mooy am mooy ne seen soldats yi ak yeneen takkader yi ñoom itamit dañuy bokk ci ñuy sànni carte ci seen réew sécurité forces yi nag ñu ne fu mu toll nii tàmbali nañ di dem sànni ji seen i carte si benn dëkk euh, wane nag euh, foofu euh, si bés bi nga xam ne nag ñu ngi jàppale ni élection bi ñoom balaa bés bi lañ dem sànni seen karta na élection bi nag ci boppam ak la ñuy génn dem sànni ji seen karta waaye lu toll si fukk ak ñaari junne si ay soldats ak police officers ñoom ñoo dem daal di sànni ji seen i karta yi Congo nag seen autorité si ñu ne lii lu tax ñu koy def mooy ne dañu bëgg a nag euh, sécurité officer si dem sànni su ko defee ñoom ñu dem takkaat seen dëgg te xam ne daal askan bi ñoom ñoo leen war a sàmm euh, ci police station si maanaam si bërëb bi nga xam ne foofu la nit ñi di sànni jee carte na si moom euh, ni lii daf koy doole nag ci élection bi parce que dafa am ay ay moo jiite benn mouvement bi ñu fed up mouvement maanaam ñi nga xam dañoo taay moom kii di Bertrand Maina mu ne nag voter list bi nag dafa doon loo xam ne labaj mun na see am parce que fu mu toll nii dafa am ñaari liste yi nga xam ne dañ koo defar yoo xam ne dafa am ñaari yoon nag mën naa am ci li élection si nga xam ne ñu koy def foofu la ca lii di réew lii di Congo te loolu mën naa dooleel ki nga xam ne nag moom moo di président bi kon si gàttal amaana lii moo si tax a euh, Denis Sassou Nguessa wane nag moom président bi nag muy toll si juróom-ñaari fukki years te am na fanweer at ak juróom-benn yi nga xam ne mu ngi ko jiite réew li di Congo Congo nag bii yoon lu mat juróom-benn ci ay candidate ay wane xam ne nag moom mooy président bi ñu am ñoo xam ne ñooñu former ministre lañ woon ci nguuru ki nga ne ñoo xam ne pare nañ pour ñoom jiite seen i réew waaye nag président bi dafa mel ni dafa am pexe yi nga xam ne lan na ko pour nag mun a amaat ndam Euh, foofu la ca réew di Congo mbokk yi mu nekkoon suñu mbir den xibaar man Omar Tunkara maa leen ko doon àggee Bassirou Sall moo nekk ci euh, caméra bi Mbaye Mbuub ak Aliou Tunkara ñoo nekk ci euh, machine bi Daara Thiam moo teewal xibaar yi jërë ngeen jëfoo